géej ali di dëkk bu nekk ci région de Diourbel département bu Mbàkke askan wi fi dëkk génn taq morso yu xong ngir fësal seen ak naqar li ñu naqari mooy commune bi dañ cee bokk te boole nu nuñ ci lan jafe-jafe courant ndox waaye tamit jafe-jafe ci wàllu ku wér gu yaram courant amuñu ndox salaire yeeg ñoom seen yooyu yëpp dañ ñoo teggi amuñu case de santé amuñu dara te lépp loo xamante ni dañ koy def ci dëkk bi lépp loo xamante dañ koy def ci dëkk bi suñ loxo ñu say jiitu moo say mujj. ndax Géejawaay boo doon lim dëkk yi gën a jege seesi commune bi ci la bokk. ci la bokk. fii ñuy wax ak yéen nii barke dina Mohamed am na fi fukki kër yoo xam ne kenn defu fi ndàmpaare te dañ leen tëb. koy dégg nii amuñ ci amuñ ci. tey jafe-jafe ñu jànkoonteel ñu ci joxoñ baaraamu tuuma maire bi ñu ne moo leen diggoon courant te it mu teggi leen. ci maire lañ ko dégg géej jaali ngoonga lañ tudd mbaaren teewru njuukaan ko ñun bu ñu tuddoon sax bu ñu tuddoon sax du ñu mais dañoo xas tut ba ñu yaakaar ñi naan nañ wuti ay frigo ak nangam saxam ndax glace bi ànd ak jafe-jafe yi ñu jànkonteel tax na nag askan wi nga xam ne ñoo yeewoo fii ci géej àll yi ne nag bureau de vote sax amuñu ko feneen la ñuy voté ji waaye nag jël nañu dogal ne loole nag bu ñu ko wéyale voté moom bu yeboo benn politicien bañati faa tegati sa tànk dañoo fas yéene banque seen loxo ci élection yi nga xam ne ñoom la ñu dëtmal élection yi moom ñu dem fenn du ñu wote waaw suñ buñ indiwut bureau de bi du ñu wote dañoo takki saret ba bëgg a dee duggi oto ba bëgg yasi ngay gànjool foofu lañuy ñuy wotee ren nag moom soobee yàlla yonent bi demuñu fenn. pare na dootuñ ba ñu doon def ngir woo kilifa yi ngir ñu jàppale leen ci jafe-jafe gi nga xam ni moom la ñuy jànkoonteel. lamp bi ba léegi moom la ñuy taal amuñu courant courant amu fi lamp ak sondeel moom la taal.